moo ne tey la samedi yemoo ñeent fan ci weeru mai atu 2024 samedi bu jot ñu baaxoo di waxtaan ak yéen benn ci baat mbaa nekken bu mag ñi nekkoon tey nag ñu bëgg a waxtaane baat bi ñu wax joxe moom joxe mu yaatu lool joxe xam-xam joxe ñam joxe cër am am mbaa man-man garab moom joxe de bu doon garab ak mango la ñu ne yegg na si rak ba bokk rono doom ya néew lool boo ne benn ñaar ñett doo ñeenteel ak ñëw leen ñu ñàlli dam njawen teeti maam sa njawaan ka laaj ko lum ca xalaat ñu ngi fa yegti nag yoor yoor jant bi yëgatiku maam toog ci njawaan gi commencé wupp ci leefaam gi coy dang nga koy yëram lool sa xel dañ maam moo jur baay mbaa moo jur yaay nga xoolee ko bëti ñëwentu ba sa xel daj ci ventilateur waaye bañ ko jundat tàngaay bi rek maam nañu doom doom jëndee ndox du ko rey ta nit nag lam juddu ba màgg sa sax sa sikkiñ bu goree rek war kaa mën a muñ mën ko te muy dëgg maam tey nag fu ñu daanalee benn xale daal di jiital ñaari tofam yenu benn super daal di yekk ba mu yekkee ba mu yegg nag daal di nuyu salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam mu ne maam sama yaay de moom a yónni ñu daal di ko taaj yenn bool bi ñu dippi ko nag muy cuuraay gerte maam muuñ ba benn bëñ ba daal di génn jël lefaa gi ràcc wupp ba mu sedd ñu lekk maam sa coguróom yéey ñu jàkkaarloo moom na ko maam lu ñu tax a ñëw tey mooy fas yéene waxtaan yow ci wàllu joxe moo ne de mu yaatu lool moo xam-xam-xam joxe ñam cër am am ba ci man man maam bu doon garabam màngoro de yegg na si rak maam na ma doom xale bii da nga gis seede si bay dagg yaa ko fekkee man ko te muy dëgg mu ne ma doom xanaa xamoo na ni kii yaayam yaayaatam yaayaatam mu ne ko hmm, maam doy na maa ko takk yoon maanaam maa ko ñaan yoon mu ne ko maam fekkee daal baax na waaye nag lu ma mën a dégg si wax ji dëgg ndeke te yoo joxe kóllëre moo koy def maam ndeke yéen lii ngeen ñu aw yoon ndax ku si dem la nga seqoon kër nangam mbaa askanu nangam mbaa famille nangam da nga cee nàmpal njaboot gi coy maam maanaam da nga ci nàmpal njaboot gi moo tax mu laan wëy waa maam ndax joxe mën nañ koo tënk si néegu bàyyi mbaa néegu nday yemale ko si maam na ma mukk doom joxe daal boo doon misaal jëlee ko rek si nag sàmm bu sàmmi ba jaf si nag yu jox lool dana nandal doomam nandal sa kum bokkatut xeet te muy doomu aadama ma ne ko maam su ma la déggee dëgg joxe daal amut volontaire ku nekk la mérito rek na ko ko jox maam jërëjëf maa la dégg ak jàmm waaye maam joxe nag bu doon ab buum la ñu ne daaj ba daat mooy kóllëre maam jërëjëf ba beneen incha allahu rabbi yéen daat ndekete yoo lii ngeen ñu si wàllu joxe maam jërëjëf